dañuy ñëw daal di tekki rek daal di bëri dem. seen yoon damay dégg ñu naan ñu naan ñu naan Fadam tojul. lan loolu loo ci loo ciy toj. waaw xam nga tey jii Fadam tojul. Mm-hmm. man mën naa wax ne bëri na ak Ama Balde. yow mii bëri nga ak Ama Balde. bëri na ak Boy Niang. bëri na ak dañuy nag Tidiane Faye Mbapat. waaal soixante douze heures benn béykat yi. waaw dajante ak Sylvain Désiré bëri na grand combat. ba ndaanaan yiy coow ci lamb yi ba dama xam ne da nga toj. non toj waaye dama feeñu. da nga toj yow. waaye feeñu ma ci. <laughs> dañuy ñëw daal di tekki rek daal di bëri dem. seen yoon damay dégg ñu naan ñu naan Fadam tojul lan loolu loo ci loo ciy toog. waaw xam nga tey jii faram tegul. man mën naa wax ne bëri na ak Ama Balde. yow mii bëri nga ak Ama Balde. bëri na ak Boy Niang. bëri nga ak dañuy naag Tidiane Faye Mbapat. waaw soixante jours benn béykat yi. waaw dajante ak Sine Balde si yow bëri na grand combat. ndaanaan yi coow ci lamb yi ba dafa demee dafa toj. waaye dama sëñu. da nga toj yow. waaye sëñu mati.